asalaamaaleykum sama gars yi Serigne Alfara Tell ma desiwaat ok comme ni ñu koy commencé defare comme d'accord tey nag dama dama ñëwaat pour wan leen nan la ñuy sauvegarder ay contact sa répertoire contact yi numéro téléphone yi maanaam nga koy enregistré si sa comme ça ko si sa compte Gmail ba dootoo ko perte parce que léeg da ngay am téléphone mu réer wala nga perte ko wala ñu sàcc ko wala waaw nga ñàkk ko ko daal de façon léegi boo amee sa compte sa compte Google après bu fekkee xam nga mot de passe bi adresse bi da nga ubbi da nga am application bi ñu utilise Gmail Gmail noonu la tudd léegi application bi léegi boo ko téléchargé après nii lay mel quoi nii lay mel. waaw mu ñëw ok lii mooy interface bi nii lii mooy interface application bi nii la mel léegi boo ko téléchargé noonu lay mel léegi da ngay ñëw fi application bi am na beneen application bu ànd ak moom bu ñuy wax Google Contact muy bii muy bii bii nii léegi bii. mu ànd ak boobu pour nga mën see sauvegarder si ay léegi boo si sauvegarder contacts yi day tax dootoo ko ñàkk boo ñàkkee téléphone bu ëllëgee da ngay dem boo amee beneen téléphone da ngay dem nga nga jël ko nga télécharger application bi wala nga dem si directement si Gmail bi après nga jël ah, ah, numéro yi nekk foofu directement day ñëw see téléphone comme ça ngay mën a woote directement am numéro téléphone yëpp mu enregistré wu directement sans problème yomb par exemple amoon la moom tamit nu mu mel gis nga ñu nii lii nga xoolal lii boobu moom moom moo ko mel léegi mi ngi nii man bële mooy sama bos amul mais beneen bi mooy loolu am na ay numéro gis ni numéro téléphone yi si application bi la nekk léegi man duma ko perte fekk supprimer moom léegi soo ko bëggee am naka ngay def da ñëw fii. nga dem nga dem Play Store nga télécharge ko mu ngi mu ngi noonu mu noonu directement xam ok mu ngi nii directement man li ma ko télécharge ba pare moo tax xama mu tax mu ñëw directement sinon da nga koy télécharge après nga ubbi mu soo bëggee dugal benn euh, contact tamit nii rek ngay def si flash bi rek nga def nga ñëw bind tur bi sant bi après nga bind lépp am na lépp après nga bind numéro téléphone bi lépp xam après boo ko bindee pare nga def fi ok nga def flash bii nii ngay def après mu daal di enregistré mu daal di enregistré ci saa si xam te doo si am benn problème te noonu tamit dina ko fa mën a nekk ba abadan fekk pertoo mën a passé bi daal fekk yaa ngi koy mën a ibbi rek dootoo perte sa numéro téléphone quoi waaw ok sama gars yi yaakaaroon naa ne tey loolu rek mooy tuto tey bu nga ko def sinon kon ba beneen yoon ok bàyyi xel si kii bi nag temps yi moom ak vidéo yu bëree bëri incha allah yu métti ah bàyyi xel ok. kon loolu na moo nekkoon tutotaay bi kon ba beneen yoon sama gars yi Séréal Fera Tell la abonné gu après ngeen ubbi cloche bi pour notification yi bu fekkee nga mën ko partager tamit nga def ko quoi merci